Noël pour tous un enfant un cadeau bi nga xamante dañu ko commencé di ko def depuis bi président Macky Sall accès au pouvoir li waral nag ñu commencé woon di ko def président Macky Sall dafa ñëw ne man damay dox ci social te dama bëgg képp koo xamante ne nii yaa ngi ànd ak man nga jàppale ma ci social loolu mo waraloon ñu commencé ko di ci bégal xalé yi. di ci dimbali xale yi nga xamante ne nii aussi tamit dañuy am yéene feete nowel waaye yàlla dafay dogal ñu ci bëri seen parents yi seen loxo jotul seen ginnaaw moo tax ñuy mottali yéene président Macky sàll avant ñuy commencer nag damay nuyoo di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne nii mooy docteur Pape Amadou Ndiaye di ministre de l'artisanat ñun sax du ñuy faral di wax monsieur le ministre dañuy wax tonton di wax papa. ndaxte mën naa ne référence la ci biir Thiès parce que modestem ak humble bi nga xamante ne ni moom la ministre Pape Amadou Ndiaye def ñun Thiès waaye wax dëgg da fay suñu sac di suñu tiiteur avant ñu koy nommé ministre ñun ak moom ñoo nekkandoon biir Thiès té ni ñu nekkee won ak mom biir Thiès biko président Macky Sall nommé yaakar na né modeste bi dafa way wañé koul tay li ñuy def xeebaluñu ko. ndax ki démb dama ko woo téléphone ma ne ko ragal féete dafay xañe wërsëg man ku nekk xam na ne monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome mi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla dafa fekk ñuy liggéeyal président Macky Sall mu jàppale ñu téye ñu ma téye ko nu ma téyewul kenn ndax ku la def nu mu deful kenn nga def ko noo deful kenn waaye yow da ngay kenn biir Thiès da ngay kenn si ñun da ngay kenn ci politique gu président Macky Sall ndax li président Macky Sall veut bëgg da nga ko koo jeunesse muy jàppale jeunesse bi jeunesse bi boo ñëwee Thiès fekk suñu naataangoo muy Ousmane Bey Diop nga jël ko def chef de cabinet kon ñun la jeunesse thiessoise li ñu war a def mooy àndandoo jàppale la dooleel la kon monsieur le ministre nous ngi lay remercier di féliciter di la encourager encore une fois ci dynamique bi nga nekk muy le président Macky Sall après nag bu ma jógee ci loolu damay nuyu képp ko xamantene ni responsable nga à di nuyu docteur directeur euh, Abdoulaye Dieye di nuyu mënuma lim parce que man nee ties awma fi ak kenn xaar ma yàlla damay faral di wax nan man sumay def dama koy def ngir président de la république Macky Sall ndax ñun Macky Sall mo ñu ñor Macky Sall la am tay nak du bisu politique bisu xalé yi la bisu bégal xalé yi la bisu and ak xale yi la waaye tamit terewul dinañu ñaax xale yi dinañu gën a encourager xale yi pour ñu góorgóorlu ci seen jàng pour aussi tamit ñu góorgóorlu ci seen ay wéyjur pour aussi tamit ñu góorgóorlu ba bañ yak jikko yi nga xamante ne dañu fekk seen yaay yi ak seen parents yi yore ko ndax doon magu alak, kon yéen xale yi dañ leen di ñaan di leen ñaax ngeen gëna gor gorlu gëna roy ci mag ñu baax ñi nga xamantene ni nii ñoo fi nekk ndax xalé bu bëggee am ëlëk ndam day jël ay mag ñu baax def leen ay référence di jël lépp loo xamantene ni lu bon la mu teg ko ne dañ leen di ñaan ngeen concentré wu seen jàng gëna gor gorlu gëna a respecté parents yi baña aussi tamit topp li nga xamantene ni nii moo xew ci réew mi en tant que jeune responsable ndax bu ñu nekkee Thiès di liggéeyal son excellence monsieur le président de la république ànd ak moom duñu wax 2008 waaye dañu ànd ak moom 2006 ba tey jii nii xàddiwuñu découragé wuñu ñaxtuwuñu waaye nag wax dëgg yàlla gémmiñ bu waxul dëgg wax la nga xamante ne nii moo nekk ci ginnaaw dëgg ñun bu ñu président Macky Sall joxee dañuy ànd ak moom bu ñu joxul dañuy ànd ak moom waaye bëgg naa nag monsieur le ministre suñu njàkkare ak suñu ñaxtu yi nga ñuko président Macky Sall ne ko mu jeunesse soir ne ko mu gestu femme Thiès soir ne ko mu gestu jàmbaaram yi nga xamantene ni ñi ngi biir jox ko ndam 2012 ak jox ko ndam 2019 te tant que bàyyiwul du nous ndax lu bëgg nous bëgg ndax nous nañ bu ñu lay l'homme de développement bobu yakarna né ne monsieur le ministre kon dang ko yok waaye man nag damay politique am ndaw ñu ànd ak man am femme yu ànd ak man bëgg naa nga gëstu leen jàppale leen ndax ñoom ñi ñii nekk ñëpp ku ci nekk femme de développement la ku ci nekk aussi tamit yaa ngi bay sa waat ci métier boo mën a jàpp kon bu ñu la dénkee artisanat nga ñëw taxaw fii loolu aussi tamit dinañ la ko ñaan bañ a guddal comme da ngay dem waaye di remercier aussi tamit femmes yi nga xam ne ñoom laa bokkal commune bi muy les femmes les braves la commune nord di ay femmes yu jàmbaar di ay femmes yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla ay femmes yu ñu ñu jar a gersu lañu ay femmes yu bëgg président Macky Sall ay femmes yu jàppale président Macky Sall des fois dañ may woo Fatou lii am na may leen man damaa sonn ndax ñun 2012 ba tey ñi ngi dem 2019 ñi ngi dem est-ce que duñ toog noppalu ñu ne ma nañ leen dem rek ndaxte ñun ñoo bëgg président Macky Sall ñoo jàppale président Macky Sall luñ ci góobee gat ko monsieur le ministre kontaan nañu sant nañ la. gërëm nañ la ndax tay ji ki nga xamantene ni moy sama leader di monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diom tay dafa melni mi ngi fi ndax gis na complicité bi nga xamantene ni amna sa digënté ak mom waxna ma ci yow aussi tamit kàddu yo xamantene ni ñun ñokay sédel ndax bu né docteur dafa bax docteur dafa simple docteur dafa humble foko ko fekk dafay ree yaakaar naa né ñun ño wara wax loolu ndax ñun ño dëkk ak yow Thiès ñun ño xam loolu ci yow

tubaab di wax générosité générosité nag mooy nga fekk ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw wala bëggoon nañ te amuñu nga ñëw jàppale leen te Olof Njaay nee na lu yàgg dëgg la ku jëf initiative neuf ans muy def ba tey kooku am nga ci gëm-gëm am nga ci yàqin di féliciter di sant tamit mbooleem jigéen yi nga xam ne ñoom nga àndal surtout sa jigéen ñi nekk waa zone nord mooy ñoom ni soxna Jéegay ñoom màgget Diop et cetera comme ni nga ko waxee ku juum man dama naan ku fàtte waaye nag tey ñëw naa ci tànk yu bari benn ci tànk yi mooy sama jëmm waaye ñëw naa aussi représenté sama xarit sama frère muy fierté pour tous les sénégalais mais également en particulier ñun le département de Thiès le ministre Antoine Félix Diom. waxam bariwul mais je ñëpp xam nañ ko taxawayam ci askan wi taxawayam tam ci dëkk bi mu ba dëkk bi yëngatu loolu lépp ñun xam nañ ko sacrifice permanent lay nekk loolu moo tax tey mënu fi teg tànkam moo tax ñun ñu mën ko représenter di nuyu taxaw tamit ci tànku l'ensemble des responsables politiques yu nekk Thiès tey bés bu xat la ndax 1er janvier le, ñu bare dañu nekk ci ay yeneen activité mais tey man defe naa war naa leen mën représenter di len ñaanal xalé yi yal na len yalla def mak, yal na ñu def ba seeni waajur fekke seeni njariñ yal na buñu fekk lo xamantene day nekk ci safan lolu motax li nga def ko mu initiative bu mak, yow tamit yal na la yalla may katan nga mën ko continuer di gën ko def ay ati ati at ba xalé yi nga xamne tay ji mom ngay jox ëlëk ñu awula lolu moy suñu ñaan moy suñu yene di ñantam président de la république inshallah allah dinañ ko wax monsieur le ministre Félix mais ñun tamit dinañ ko jëm suñu bop mu gëna japp jàpp waa Thiès na ba paré tam mais mu gëna japp jàpp waa loolu tam possibilité mais diñ koy sant encore parce que président de la république ba muy départ dafa tuddee mandat am tuddee na ko jeunesse ak jigen ni kon su tuddee mandat sa mandat jeunesse ak jigen ni té tay yaay yi ñoo and ak seeni dom kon tay ji defe loolu wuyu si na mandat bi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaam